am solo dinañ ko daal di. man sax euh, tey laa dégg li tey la war a ñëw. waaw dina ñëw. tey la lëndi. accueil bi dinañ ko accueillir foofu si waanu aéroport. aéroport waaw. Macky su ñëwee da nga koy bàyyi mu delluwaat <laughs> avance. loolu laa dégg ni dina ñëw tey. suñu mais suñu waaye selon les informations qu'on a reçu. ci presse dina ñëw mais mais est-ce que war nañ ko bàyyi mu delluwaat si. non non dama ne loolu le nouveau régime moom mooy xool ndax dinañ ko bàyyi mu delluwaat wala déedéet. Macky moom dañu doxatu Sénégal. mais il faut que ñu xam ne sénégalais du ñu signé pétition fii. gëjoon na fi nag. Macky Sall ñëw fi ñu bàyyi ko mu delluwaat

on parle d'un ancien président bi war a ci sa gestion la ñuy wax ñun France engagé wuñu ko France moo la ne dafa manqué ci ay ay doomam ku war a ku ko war gérer 4P moo la wax mais Macky lañ si taamu orphan dama ne Macky Sall bu au Sénégal na na ko les autorités bañ a bàyyi c'est l'occasion waxuma ñu jàpp ko côté ko côté. na fi toog amna déclaration de patrimoine bu mu war def defu na respecter institution yi ba paré na tok rapport yi parce que dañ ko dañ ko war a soxla dinañ ko soxla pour mu leeral moom leeragum yogul. la renégociation des contrats ba léegi ñëwagul dinañ ko soxla mom tamit des explications il nous doit des explications Macky Sall et ses ministres nous doivent des explications ils doivent des explications aux Sénégalais donc c'est l'occasion

xaw ma lan day toog dañ koy nangu parce que suñu bien la. bu yób bu yóbboo France tant que ancien chef pri en tant que ancien chef de l'État. oui mais enfin loolu moom c'est le minimum en fait ñu bàyyi. oui ancien président de la République. bu respecté wul institution loo koy def. non enfin loo koy def. c'est le minimum ñu bàyyi respecté wul institution bi. waxuma ne serait-ce que Macky Sall ban institution la respecté Sénégal la waxuma ban. conseil constitutionnel alors ñu jàll si enfin Eh, donc Macky é nañ ko téye daal nañ ko téye mu toog pas pas pas mu tëj ko mais na toog Sénégal. waxuma nañ ko téye pour mu tëj ko. dafay daf fiy toog am na lu il nous doit des explications ce monsieur. alors c'est clair alors DPG nous doit beaucoup d'explications DPG bi. Euh, Diomaye nee na dina waxtaan ak ak li nga xam ne modi euh, les députés ñu xol nak la ñu trouver une solution. non non waxtaan nañu ba paré waxtaan na ak président de l'assemblée nationale. non waxtaan waxtaan na ba pare. li ma dégg moy fi ak Mali dina am solution. si wàllu woowu donc je vais déduire par là que ni waxtaan dina am. Euh, mi ngi invité Ousmane Sonko à sursoir son grand théâtre sa déclaration de politique générale bi nga xam ni itam bëggoon na ko prévoir ñun sax peut-être moo ñu vendre cette mèche du grand théâtre attends euh, ban position nga euh, analyser la position bien nga xam ne tam Diomaye taxaw na ko si de DPG parce que boobu ba tey mi ngi doon nekk si euh, toog njàmburam mi ngi doon nekk si coin addu addu si doon sax ñu ne moom moo war siffler la fin de la récréation. loolu dafay ñëw fégalaat encore dafay ñëw confirmer lu mu doon ne il est au-dessus de la mêlée il a dit il est au-dessus de la mêlée donc lu mu wax keroog wane na ko ni que nëbb tout la woo naa président assemblée nationale ñëw na ñu toog waxtaan trouver solution premier ministre wax naa ak moom teg na dina teg lépp ci suuf donc il a utilisé son son bâton de pèlerin en tant que président de la république waxtaan na ak les deux parties trouver nañu solution lii la ñuy xaar ci njiit il n'y a pas chaque fois l'argument de la force ce qu'on a tay est-ce que xam nga ni su ko fait, tay mom d'accord comme assemblée nationale de bëgg jaay doolé légui assemblée nationale ma kan oui mu ne comme ça comme nii la demee léegi man dinaa ñëw tas assemblée nationale point ñu xool kan la fa fa fa kii ci lay mm. mais defu donte yoon moo ko may sañ-sañ boobu dafa ko dafa woo les deux parties ne leen kaay leen mu wax ak waxtaan ak kii ba pare mu dem waxtaan ak kii ñu trouver solution moom bañul waxtaan di wax na ko loo gis waxtaan muy njëkk waxtaan buy mujj chaque jour ma wax la ko ci plateau ma ne la les deux guerres mondiales les deux guerres mondiales ont fini autour d'une table de fraternité waxtaan nañu waxtaanee ko mu jeex. ñu ko pencoo. nañ ko pencoo donc président loolu la def ba coow li bëree ba coow li bëree yi naan Ousmane Sonko DPG euh, devant un jury populaire ñu ne assemblée nationale ñu ngi waaj a voté loi pour ñu bañ a tas assemblée nationale assemblée nationale wax ne li ba coow li bëree bëree hmm. moom mu ngi ne tekk di doxal si suuf ñi ñi ne non le mutisme du président de la République alors que ouais je crois le journaliste même l'on la ko posé question bob le mutisme hmm. du président de la mu ne c'est pas un mutisme man ma waxtaan ak kii ak ki ba coow li bëri ngi interne on n'est pas obligé président ñu muy waxtaan mu la presse wala les caméras c'est pas comme ça kilifa dina waxtaan ak nit ci sutura loolu mooy kilifa mais il n'est pas dit tout ce que le président de la République fait chaque jour on doit amener les caméras et, les micros non c'est pas ça c'est pas ça Merci beaucoup. donc def na médiation bobo président def la médiation Bon, tax ñu donc avoir une déclaration de politique générale dans les jours à venir Merci beaucoup. assemblée nationale aussi d'accord ni que dinañu xoolaat un règlement intérieur un règlement intérieur Merci, donc ils sont d'accord donc un na Alors. bi il est temps de bàyyi bruit DPG déclaration de politique ñu il est à ñu bàyyi loolu mais sénégalais dafay nekk ci débat bu amul sens pendant des des des jours des semaines ay débat bu amul sens loolu mooy sénégalais au lieu que ñu dem vers l'essentiel essentiel jublu ci l'essentiel, parce que liggéey mu ñuy xaar ñu dem ci liggéey boobu ñu ne non DPG assemblée nationale Ousmane Sonko assemblée nationale Ousmane Sonko ba kañ ba donc je crois que président nous mu war ñu bàyyi point boobu dem jàll ci beneen point. merci beaucoup mais comme ñun fii <laughs> Sénégal politique bi nu mu bindoo. jaajëf président wax na Bougane def na point de presse am beneen débat ñëw na waa Benno Bokk Yaakaar xaw ma bi nañu def seen point de presse tey beneen coow mooy ñëw. Hmm. Sénégal chaque jour coow chaque jour coow chaque jour débat bu inutile chaque jour leneen ak leneen ñoom tamit bu ñu defee seen point de presse tey beneen coow la ñuy yëkkatiwaat média yi. une semaine de ce titre chaque jour chaque jour chaque jour chaque jour. merci beaucoup Nous dem vers l'essentiel Sénégal de nos internautes a été un plaisir de vous accompagner à hein, ce merci beaucoup en direct sax li li xew plateau li xew commentaire ñu euh, euh, on se donne rendez vous demain alors.